Salut les amis des sportifs et de Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de like. like. Merci de vous abonner. Merci également de vous des commentaires. Un plaisir renouvelé Gaël chaque fois. De partager gain d'informations inbox sénégalais fépp fu les montagnes nekk 14 régions du Sénégal ruuxu-ruxaan yi gox-goxaan yi ñu ngi leen di ñu nekk également ci lal l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñeen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ni dédoo àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si yi yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV l'actualité en continue actuel actualité ñu c'est yéene la Lamine Camara exceptionnelle à quoi Barça qui a xam moom également sur le départ boulaïdia aussi en feu euh, qui dit euh, donc également Keita Baldé Diao mais changé club yëpp ñu fas yéene ko wasaare ànd ci avant bob également match amical Sénégal Tunisie suñu nous gagnons la di dora un point d'écart mais match le bord ne riche d'enseignement de la génération bini fait que ci kanam fait ak deux ans mën nañu yaakaar ci ah, les jeunes ay ñoom Branco Badio ah, Lo Sila entre autres pendant ce temps nag l'otaro Martinez il y a maintenant c'est officiel Prolonger le contrat avec Inter de Milan en 2029 le capitaine donc des euh, bleus et noirs de euh, l'Inter de Milan bien évidemment donc l'Argentin pendant ce temps on a nga Alvarez qui est gars euh, numéro 19 le Dadi, donc il faut du côté de l'Atlético de Madrid l'attaquant donc de Manchester City il du côté de l'Atlético comme je disais transfert Maintenant ce temps qui qui dit je également qui euh, euh, Joao Félix moom nag fi mu buntu yi pour del du côté de Chelsea ko et que fofu foofu leer dina am temps de jeu. également Zubimendi nag moom moom waa ji moom day xamuñu xamuñu lu mu bëgg quoi daaw def na ko Barça ren def na ko encore ñi di waa Liverpool euh, muy lan dem ba dernière minute ne euh, dematul ah day toog loolu daal la Zubimendi daal di eh, defaat kii moom xaw ma ñàkk wërsëg la xaw ma lan la mais daal mi ngi noonu kii nag di Fiorentino Perez leer na li mu wax mooy que ne nee na jaayul tey jaayul ëllëg ki nga xam ne mooy donc Vinicius Junior gannaaw bi nga xam ne nag nee naa leen un la ñu teg ci ndoddu Vinicius Junior pour daal di koy. jënd mais moom nee na jaayu ko Ben yoon booy bi ngeen gis nag défenseur le 18 ans la am il fallait du Brésil la nekk di victor Reis fi ne nag Real Madrid daal ci boy bii dañu intéressé wu moom Real moom brésilien il faut foofu la ñuy dem di nduggi jee quoi ñoom seen meilleur joueur yëpp presque booy seet ay brésilien daal bëri nañ ci lol. lol lool lool kii également euh, Dani Olmo démb lañ ko présenté donc du côté euh, du Barça ci seen trophée Gamper bi ñu doon joué ñoom ak Monaco mu ko premier but qui dit Dani Olmo le joueur espagnol en provenance du AB Leipzig 3 buts à 0 Nak la ñu exceptionnel C'est si leen L'année leen L'année ñaaw na loolu def ah, Monaco Golden Boy wane na ak Mbolo ak euh, Mawissa également des recrues bu Toulouse d'Adi comme je l'ai dit nag est Lamine Golden Boy Camara Lafkiat Camara ah, mi il a été phénoménal exceptionnel moo Le premier but donc mais également il a fait un match plein un milieu de terrain um, Barça et dans la récupération et dans la projection et dans le également jeu vers l'avant très très intelligent Lamine Camara ngeen gis bii bii nii ah, mu def ben récupération pression euh, ci défense adversaire nga xam ne mauvais mauvaise passe bu di euh, Inigo Martinez mo am mom mu daal di euh, récupérer ko avec beaucoup d'altruisme daal koy dougal ki nak moy Pau Victor moom it si recrue Barça yi la bokk ren ah moom lañ tabb malgré tout mu nek homme du match ah, même bu fekkee dañ do 3 trois <laughs> lañ tabb mu nek homme du match muy ki di Pau Victor lool nak la comprendre lu tax jox ko homme du match ki nak di wonk Mikayil Ngor Faye waxoon naa ko nee naa leen Mikayil moom. na jógee Barça bu fekkee ni du temps de jeu comme ni ma waxoon moo ngoog ah, mi ngi nii fi mu ne nii démb jeewul donc je pense que ne jot na te booy seet huit défenseur la waa Barça am te moom yëpp démb duggul même bu fekkee yene absent donc ça veut dire que ne beaucoup ci priorité bu Hans Dieter Flick pendant ce temps qui nak di euh, Keita Baldé Diaw mom dem na signé ci Sivasspor en Turquie waxoon na len ko il reprend donc euh, du service gannaaw bi mu quitté librement l'Espagnol donc ñu koy souhaiter bonne chance qui di Keita Baldé Diaw qui nak di wax na leen ko Aliou Badji moom euh, signé na du côté de fi nga donc Red Star bu nga donc. uh, Kimolan Yoron Habib Beye mu dem signé fa jógee Bordeaux Bordeaux bi nga xam dafa daldi di euh, wàcc national ki également euh, Ismaël Spidi Sarr moom euh, Burki Dem la daldi di joué première minute ak waa Crystal Palace hein, donc Ismaël Spidi Sarr bi nga xam nak dañ koy souhaité aussi mom saison bu baax a baax parce qu'il le mérite retrouver confiance parce que boo confiance ak day baax ci Sénégal pendant ce temps Boulaye Boulaye Dia démb jouer na dougal doublé def passe décisive mom mi nga xam né nag gars fi né ni club yu mel Everton ñi ngi insister wax na la ñaari club italien ñi ngi insister mais aussi en Angleterre moom dafa bëgg dem mais ñi nga xam ne nag mooy donc club am bëgguñu ko bàyyi mu demee noonu waruñu ci bëgg lekk xaalis les lii moo nekkoon information yi ñu bëggoon jox toujours plaisir de servir ah wéy leen like wéy leen di bu leen fàtte abonné suñu ñaari chaînes yi di Baba Show ak iSport TV TikTok bi iSport TV Instagram bi iSport Inter su baax ci yéen la gars yi bëna suñu la jaa jëf